nga xam ne dégg nañ ko rawatina ñoom ñi nga xam ne nag moom mooy yëkkati xaalisam di leen di leen ko fay. Mhm. moom laa lay wax léegi xam nga dañu métier bi nii du waruñu la tënk ci dara mhm. donc dafa nekk loo xamante ne moom mooy ay information ngay jël traité ko. peu importe nag information bi ah mais da nga koy traité nu mu nu mu nu mu waree. Mhm. que ça soit mu nekk sa lii wala sa lee wala sa lala donc danga koy traité donc nag peut ñoom mun nañ leen bañ a tënk ci loolu noonu. Mm-hmm. comme mën nañ leen ci tënk nee leen lii nii bu leen ci wax bu leen ci wax kenn du ci wax wala ku ci jéem a wax tamit ay sanction fekk la ci wala yooyu noonu. Mm-hmm. mais ñun munoo ñu tere bañ wax ci loolu noonu. parce que Aïssatou Diop Fall tënkuñu. Mm-hmm. moomuñu. donc loolu moom moo tax pareil que Farba Ngom boobu noonu moomuñu jënduñu donc information bu ñëw dañ koy vérifier. Euh, collecté ko traité ko après ñu. ñu diffusé ko moom mu jeex tàkk. donc dafa point bu ma bëggoon ñëw parce que euh, ginnaaw boo dégloo audio bi diggante euh, ñoom ñaar donc dafay mel ni ñoom dañuy confirmer li nga xam ne rek dañuy naan am na yenn politiciens yoo xam ne dañuy tënk yenn journalistes wala am na lu ñu sekk ak ñoom wala comme ñi nga xam ne dañ leen di dañ leen di corrompre donc dafay mel ni dañuy confirmer loolu ah, noonu. daf fi bari. Mhm. maison de presse yu bari yoo xamante ne tey jii ngi fii. Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy régime bii nii nekk fii euh, ñu ci bëri dañ leen a tënk ah que ça soit peut-être mun na nekk ministre wala DG wala dara wala dara dañ ñu ci bëri nag laa wax. Mm-hmm. ñu ci bëri nag du ma fi nekk nag di citer ay diw ay diw ay diw mais xam naa ci ñu bëri ñoo xamante ne tey jii nii chaque le vingt cinq wala chaque le vingt et un ñu viré leen xaalis ci seen ay maison de presse. ñun aide de la presse bi dañ cee bokk. suñu DG mi ngi noonu donc moo tax ma ne la am na ñoo xamante ne ñu ci bëri ci ci presse bi. fii nii Abdou Fall daaneelal may moom ma dugg. waaw waaw waaw waaw waaw bisimilah. <laughs> Abdou ñu ngi lay ziar. delloo ziar baa yaa ngi si jàmm. di ziar ona gëj nañ ko dégg lool foo jaar yoon la. Ah, foo jaar yoon la yow yow yaa ko fa am. woo <laughs> ko fa am de. ñu ngi leen di ziar. delloo ziar bu baax. di leen namm lool ci gëj déggante bi. dëgg fii la ëppee. Mhm. Ah, di leen encouragé ci liggéey bi am na solo lool macha allah. merci beaucoup waaye Abdou xam nga. Mhm. audio bii ñuy wax du audio sax vidéo la envoyé naa leen. Abdou lii. fi mhm. ñu ko enregistré technicien yi ab ak nu mu tuddati Aïssatou Diop Paal ñoo ko enregistré benn. ñaareel fa mu ko doon waxee. dafa mhm. fekkoon mu fa doon weer nit. Mhm. fa fu weeru parce que audio bi fu mu tàmbalee mooy da doon teg audio yi ñuy takkal Amadou Ba ne moo ko wax. ba pare nag mu retourné. kii Farba Ngom woo ko. Mhm. mu def ko main libre. bi mu ko defee main libre am na lu jiitu wax jooju mais. Mhm. fi ngay ñëw mooy wax ji li nga wax léegi ne lan moo tax mu di ko wax mu am audace di ko wax loolu ngay jàng mooy forme bi ak fond bi parce que mhm. d'abord. moom bi mu ko defee mais libre rek ne Farba moo may woo daf ko njëkk a wax ne ko yow yaay doomeraam ngeen jéggal ma ci kàddu yi noonu la ko waxee quoi. dëgg la Aïssatou Diop moo wax loolu. Mm-hmm. Farba Ngom mm-hmm. dañ ne ko yaay wëyu mm-hmm. yow yàlla boo ma yàlla boo ma weer yàlla bu ma xuloog yow nga di ma weer loolu moo jiitu ci ci audio bi audio loolu moo ci jiitu vidéo la envoyé naa leen ko loolu moo ci jiitu léegi nag mu wax ko ne ko mu ko doon wax ne ko nan nga mën a weeree ñoom daam mbóoj fi nga leen jaarale ainsi de léegi kii di ko nettali naan kaan maa leen jaarale fii caméra nangam nangam ci la ko wax nag ne ko nag boo paree ñu déggante. waaw ci la ko Farba Ngom wax baat boobu waaye baat boobu la ngay jàpp ne xel lañu ñu yore rek ah. xel mm-hmm. amul kubéer. Mm-hmm. néewuñu lu am la néewuñu lu amul mais li ñuy xalaat mooy. bu ñu ko seqal kon jabaru jàmbur. du am audace wax ko baat boobu. wax dëgg yàlla. beneen bi ci ay Aïssata Diop Fall moom bu amul woon relation boobu ak moom du ko wax ay doomeraam nga. di ko wax mhm. naan kaan yaay wuyu. di koy mhm. wax naan yàlla boo ma nettalil yàlla bu ma xuloog yow nga di ma nettalil. Mhm. alors on a. ki Aïssata ci der ci deru nit la kilifa la mais ña yàq seen der di wax ci ñoom lu ñaaw ay kilifa lañu. waaw lii ko dal fii mu ko dalee daa nekkoon ci ay nit. la nekkoon benn ci Amadou Ba la nekkoon. di teg audio bi di ko dagg jóge fa dal ci ñoom Dame Mbodj mhm. kon donc ay nit la doon weer xamul ne bi muy def me bi ko Farba di Ngom di woo moom muy def main libre bi gis nga ko sax dafa tourner caméra bi euh, ngir bañ mu jël ko mhm. mais booba wax ji jàll na ci micro bi mhm. affaire bi noonu la demee léegi nag li nga wax léegi mooy xam nga we dañu nekk ci réew moo xam dañu tàmm di weerante weer baaxul. nit ku nekk da nga am vie privée. Mm-hmm. nit ñi il faut ñu bàyyi leen seen vie privée yi. Mm-hmm. lu xas na génn ci privé ba tàbbi ci penc mi nekkatul privé ñëpp ci am xalaat. Aïssatou Diop Fall audioom bi xalaat bi ci ñëpp am mooy lan la séq ak Farba Ngom ba am Farba Ngom am odaasu di ko wax baat boobu te mu leer ko ne mi ngi ci buumu sëy bi mhm. it lan la séq ban relation la am ak Farba Ngom ba di ko traité baat yooyu mu ko traité parce que dafa am baat yoo xam ne boo ko dee traité nit dafa sori ngeen ko bu ngeen soriwul bu fekkente ne dama lay invité rek nga ñëw toog wax pa sa ci plateau bi dem sa yoon am na baat yoo xam ne du ñu ko seq. ko seq. Mhm. bu ñu ko seqee c'est parce que am na leneen lu ñu seq feneen ay xel rek lañu yore ni confirmé wu ñu affirmé wu ñu dara mais suñu xel lim ñuy jox. nañu nañu bàyyi caaxaan yi caaxaan baaxul. Mhm. caaxaan baaxul nañu jéem a teg réew mi ci yoon. yii yëpp ñàkk tegu ci yoon ak bëgg amul moo koy indi. kese waaw. ñoo ngi leen di jaajëfal. bu baax di kontaan ci yéen bu baax merci beaucoup. Ah, kontaan naa trop bi ma gisaatee ona ci. kii bi ak gën a <laughs> kontaan yéen leen doon gis bu damay woote mais du am heure woote quoi. dëgg la dëgg la merci beaucoup comme niñ koy woowee foo jaar yoon la yow foo jaar mm. yoon la donc ñu koy jaajëfal bu baax. di leen wax yéen aussi tamit mën ngeen def kon moom ngeen ñuy ci buum jokkoo bi 77 227. 12 12 nga daal di dugg rek wax nga xam ne moom dégg na ko te Bijou moom tegal nañu vidéo bi donc man euh, comme ni ko ñëpp jàppee woon audio lañ ko jàpp man déjà ci foofu laa mm-hmm. bëgg a envoyé yaa koy envoyé man man tout le temps su ma déggee ñu ne audio sax man damay ne ay retard moo may jàpp parce nit sa téléphone yaa koy yor li nga mm-hmm. bëgg a yaa koy envoyé sa code téléphone yaa ko xam mm-hmm. kon ay audio fuité gëw ma ko day fekk nit ki bëgg la yàq mu yàq la. Mhm. mais pourquoi yàqante bi. waaw yàqante bi mooy parce que Sénégal ci lool la ñu nekk. Mhm. boo xoolee ñun ay at yu bëri bëri bëri yooyu rek nga fi dégg diw waxal na diw nangam diw waxal na diw yow dégg nga kaa nii dégg nga kaa ne nee. Mhm. nangam nangam ci lool noonu rek la ñuy attardé wu à chaque fois. donc euh, fa jaar dafa am dafa wax lu lu lu am solo mu ne. lan la moo tax ba ñu ñoom ñaar ñuy séq yenn wax yi nii. foofu lañ loolu la ñu war a laajte mooy xam nga lan mooy comme li ma wax sànk rek dañuy bëgg loo xamante ne amuñu ko. Mhm. léegi il faut que nga def loo xamante ne tey jii nii yow en âme et conscience xam nga ni <coughs> boo weetee sa bopp di nga xam ni kat yow li ngay def nii. Mhm. bu la ci nit ñi fekkee wala nàngam di nga rus torop torop torop torop torop. moo waral après ngay def yenn yi nga xamante ne après da nga koy rëccu. mooy comme li ma wax moom instant bii nii nii nii nan la war a xoolee borom këram. loolu rek problème la. Mhm. nan la war a tëddee guddi ñoom euh, ñu tëdd mu war a tiim borom këram. di xalaat loolu noonu. te te te bu doon comme bu doon ni comme ni ñu ko waxee fii fuité la bu doon audio la bu ko neexee sax mën na tourner ne lii dañ ko monter. waaw am na ci droit. Mhm. mais xam nga lii nii euh, vidéo bi. bi ñu génnee lu ne fàng la vraiment. <laughs> donc mu nekk loo xam ne lu doy la doy doy waar la ndax lii moom looy ne. dañ ma kaa waxloo wala micro bee ko wala lii ak lii ak lii. Mhm. lu ne fàng kenn du ko jeex ona dañoo yàgg nekk di yàq ay nit. Mhm. mooy comme lu sawaay wax rek dañuy toll di yàq ay nit. di waxal nit loo xamante ne wóoru leen wala xamuñu ci dara c'est le cas ñoom ñaar ñëpp ah. Mm-hmm. di waxal nit lii di waxal nit laa. farwa nga récemment waxu taxaw fi ngay bëgg wax ci ñi far far far yow ci jëm boppam ngay bëgg a kaa ci ñi far yow ñu kaala mm-hmm. xam nga récemment y a même pas une semaine Farba génn fii nii taxaw ne Dàmbooj ak Clédor Sène tuumaal leen te ba tey du moom Farba da koy dëggal de waaw moom laa lay wax mm-hmm. di ko dëggal on a entendu Clédor Sène ak Dame Mbodj yëpp. Mhm. indi ci ay leeral. donc xam nañ dëgg gi fan la féete mhm. donc mooy comme li ñuy wax rek yàq nit la ñuy bëgg. parce que lan peut-être euh, ñii dañuy déranger ñii am nañ loo xamante ne position bu ñu taxawee nit ñi dañu leen di déglu par rapport que man nit ñi duñu ma déglu ak yooyu noonu. Mhm. loolu moom moo tax kese ñuy nekk di yàq nit ah. ay Diop Fall aussi c'est c'est pareil. lu ne waxal na ko fi waa Pastef lu ne waxal na ko fi Ousmane Sonko nangam nangam nangam nàngam ba ba tey jii nii day yooyu lay def donc xëy na peut-être suñu borom moom moo leen di wan ay mbir rek wax leen ni moom fii moom bul yàq deru nit daal. te suñu borom sax bëggul loolu noonu. Mm-hmm. ngay toog nit di ko yàq diw nangam kii nangam kii boo xamoon li ma ko xamal wala kii boo xamoon li mu xool li ma li ma yor ci moom. lii mm-hmm. maay kaawam maay nangamam. lan moo ko fi jar. respecté li nga xamante ne moom mooy sa liggéey. la nit ñi xamee yàgg la xam ni yow euh, femme boo xamante ne nga da nga dugg ci benn métier boo xamante ne mu bëri ay góor. xuus ci jaayante ba tey jii ni ñu lay dégg foo xamante ne amaana yenn ñi góor yàlla yi sax dégguñu leen. foofu noonu mais kon respecté li nga xamante ne moom mooy sa liggéey boobu noonu. moo mm. gën ngay dugg ci ay futilités yu ñàkk fayda yi nga xamante ne tey après sa dootoo amati benn baat. doo mhm. amati crédibilité nit ñi nan lañ lay xoolee après sa koñ nan lañ lay xoolee say mhm. goro say xarit et cetera et cetera mais lan la ñuy wax parce que après parce que ku ci nekk rek dina am noo xamante ni moom nga koy jàngatee di ki man peut-être mën naa ni noo dafa juum kenn noo juumul moo ko tey kene noo ñoom ñaar am na lu ñu séq mhm. kii ne nàngam kii ne nàngam léegi moom na génn leeral waaw na génn leeral c'est tout parce que moom moom xam naa ne moom euh, ragalul wax lépp lu mu bëgg a wax da koy wax ah ci luñ ko leeral de. na ko ci luñ ko xamee lépp lu bëgg a man de maa ngi xaar mu génn leeral. waaw loolu lay xaar ci moom de mu génn wax ni kat lii nii ak nii ak nii la demee Farba lii moo tax ak lii moo tax mu am sañ-sañu wax ma lii nii. Mm. nit ñi xam ko moo gën. en tout cas nekk na nekk na lu lu lu doy waar donc dañuy euh, jàll euh, ci beneen actualité donc euh, ñu gis ki nga xam ne moom mooy Imam Dramé muy joxe ay révélation di xam ne nekk rek am na ay yeneen audio yoo xam ne aussi tamit ba tey dañuy ñëw ci yàkkante bi donc